xam naa su ma ñëw ci kër gi sax dina nekk lu leen jaaxal ndax heure bi ma ñëw rawatina ak suma valise waaye dafa fekk ni suma diggante ak Kya moo commencé metti lool ci man. ñàkk neex gi mu ñàkk neex suma yaay dafa laalaale ba ci famille suma rakk laalaale ba ci suma biir famille lu bari dañu opposé wu pour ma bàyyi Kya. te su ma diggante ak Kya jiina ma loo xamante ni bii ma bàyyi sama waa kër gannaaw ñëw dëkk ak moom moo ma gënal fopp ma di ko bàyyi gannaaw loolu nag moo sababoon ma bàyyi suma yaay ginnaaw bàyyi suma rakk ginnaaw déggatuma gisatuma lu dul nag ngir ñëw ci kër gi ngir nekkandoog yéen ci biir kër gi je pense moy nek jàmm ci suma yaay ta moy nek jàmm ci man mais yow taala fi mo fi dekk kër yow taala yaay ngi xalaat nga dekk ci kër gi ñu nekk ya faram du ko ñibil mu dekk kërëm tu t'entends parler ah eh yow man yow xuma yow ban ban monde nga ne quoi ngay ñew tok leb leebal dama yow bo tëddoon bu gudd ñu la yow man nga dekk fi di ko gëm yow jaga nga yor wala da nga bëgg nek ala wala sék sa passe nan la xamul mu bëgg nga and ak sa valise bi ci biti fi mëno fe ne dégg nga luma la yow lo bëgg yàq deru xalé bu jigen bi nan dafa ala ak farama eh, këti këti di leb-lebal wuy ma mënul ne xul ak sa yaay bu yobo nga dem wuti appartement bo dëkk leer na taala fii nga dëkk fi moom dina compliqué yow yaa juddoo ci gilem nàmp ci mbaam mënuma woon a wax ak yow ci hôpital ba mënuma woon a wax ak yow ci oto bi man biñ nee ma doo jànq man dama doon lox man tuuti ma dee yow yaa bon yaa ngi dugg ci gëlëm nàmp ci mbaam yow lu ma la bëgg wax sax danga koy xel nga ne ci kër gi ma bàyyi la ci kër gi ma ne ci xew yi di liggéenti di dem di jaayi lu ne ma dugg ci lu ne ma génn ci bañ nga xiif bañ nga mar xam nga caka yi day day dox ci mbedd bi waaye yow yaay cëgg kër yaw yow yaay doomaraam yow yaa ma teg gàcce waaye nag dootoo ko defati yow di nga xam ne maak ci biir kër gi du ma ne sa ci biir kër gi ci digg Sénégal laa koy yow nan nga mën may ne ci xew yi di dem ak a dikk bàyyi la ci kër gi nga ne ci kër gi di cagatu. ragatu ci sama bir kër di def lu bon sama bir kër yow ya ma bett ya ta sama yakar. man na ngotuma de ben laban kuma ma wati laabaan duma dem ndax may wër man mi wër di laban xalé yi man mi wër di yedd xalé yi ndekata sama doma gi di càggatu sama bir kër léegi na xamul ma lay laaj lu tuti la te wu dama bëgg wax ma lu leer yow kan mo la violé loolu la soxla yow yaay man xam nga ni man man bonuma yow fi Alima ba mu fi ñëwé woon premier jour bi yow ya, yaa ma wax ma topato ko bu mu manké dara léegi man mu duggé ci nek bi diko jox añam après man xawma sax dama jék jék lu mo wax mun mané waw dama bëgg ngeen comprendre ma bu baax. compréhension amul fi dala pour mu leer. seen bu buma démé ba bàyyi suma yaay gannaaw. bàyyi sama sœur gannaaw ñëw fii dama yaakaar ni fii laa yaakaar wàllu c'est vrai que ni nag sama valise bi xaalis bu bëree ngi ci débloqué naa xaalis bu bari pour mën a tranquille waaye li ma leen bëgg a xamal mooy dama amoon yéene rek ñëw ci kër gi pour ñu changer tuuti situation jéem a xool lu calme lu ñu mën a dund au lieu de may dem di wut ay hôtel wala may wut appartement ma resté ci kër gi loolu rek moo sababoon ñëw bi ci biir kër gi ndax xam naa ni damaa bëgg Kia Kia maa ngi doog comprendre yaa ngi dégg parce que situation faaw mu changé parce que booy bi il est sérieux te seen waa kër baaxuñu gis nga kii bu fa nekkee mën nañ koo posé na mu dee te yàlla la na ne yow mosoo am fii far bu gën taalam yi pour mu leer nañu obligé jëm ko gérer tuuti le temps que muy wax ak ay parents yoo xamante ne mën nañ ñëw ma may ko jabar mu wut appartement yéen ñaan ngeen nekk fa xam nga nga bàyyi ko mu nekk si kër gi en na ñu jëm ko gérer tuuti dégg nga booy xam nga moo bëgg léegi yow gérer taal yow euh, kia bàyyi ko mu gérer nga arrangé ko ay bagages am ci biir mu gérer ko quelque temps. après situation bi changer mu ngeen meuna a dem quoi. ah am problème comme yow yé sama julli wax nga lolou am problème mais man moom kenn mënul téré ma dem ci temps Fadam waxtan ak da nga bëgg dem ci Fadam. mais tamit euh eh, mentor duma ma dem waxtaan ak yaayam parce que bayina sen seen kër ñëw fii après yaayam leneen lay wax lo xamantene sax nekkul li nga xam mo moo nekk parce que man ñoo bi yëgu ma ko koy dogo a yëg bàyyi ma dem rek mu waxtan ak moom. Thia nga balma xamna ni bo sañon duma takaliko ak suma yaay. waaye xam naa ni maire bi actuellement ak ni ma génne kër ga ak état bi ma ko bàyyi du yoon mukk ngay dem di ko fekk ji ndax mën na laa yàq lu ne te bu boobaa du ma gënal su ma sañoon nga bàyyi ko nga toog. gis na booy gis nga góor rek xaw a dëgër tuuti ah sa yërmande ji faa nga jëm ko écarter tuuti xam nga yaay neex na trop mais itam am na yoo xamante ni wóoratul parce que tey ji yow mën na la posone faaw nga jéem dëgër tuuti yow eh, bu fa dem de dégg ma la wax. dugg ngi dem fii Seye ci kanam. mu amoon li ma gënal nag doo fa dem. moo ngi dem mais du ko jëlee lu daal depuis jour boobu su ma ko xoolee si bët lu ma wax ma ne waaw. yéen dal da ngeen ni kana sha na pala le suridan sin das ngeen ba ya. doyal Alimar moo la def lool koku du ma ko yow mak mom la dotu ko defati mom maa koy xaar ba mu ñew di day jang say say di jay bandi man xamone naa ne Alimar bandi la xamone naa bandi la. bandi pure ngi noonu et dur. Alimar mooy xaram mooy imbécile. ba pare moom dafa mystique. dafa mystique yow daa xamal dafa mystique yow daa xamal dafa mystique xamal mu damay yow caga nga yow. yow am say wax dama ko jël teg ko nee moom nag laay xaar ba mu ñëw moom laay xaar ba mu ñëw gisa bu ñëwee dina xam jéeg pire la fekk ci biir kër gi. xam naa sax ndaw moom kenn mën la koo dellawaat waaye dina dégg lu mës a dégg dina ko dégg moom lu mës a dégg dina ko dégg tàkkaguñ la nga sa bopp yaay imbécile ci biir laajuma la dara yow yow gàcc sax yow kii sax damaa xool yow jom mu naan day jooy nii wóor na moo ne Aliouma kay du kaddu ma ci biir néeg tëdd ma balaa sama yaay ñëw caga bi nga doon moom caga indo sax xale bi mooy imbécile Aliouma mii man lan laa ko war a def. maa ngi ko ci biir kër ba mu ñëw billaay dootu ko defati duggoon na loxam ci soos bu tàng jër te dugg ci gémmiñam bi day jàng wuyu rek jàng bandi moom barki démb la jóge prison ñoo defati bii toj toj ëmbal na xale koñ bii biiral na xale koñ bépp violé na xale koñ bi yëpp xale bu ko seen la dangay daw xale bu ko seen dangay daw ñi am ñaari sax bu ñu ko seen da dañuy raam sax fi di daw ndax ndax cagaam day jaay caga baax maa ngi koy xaar ba mu ñëw ci kër gi fekk bëccëg yow loo xewle ni yow. da ngaa da comprendre lu quoi. maa lay bett chaque jour. ngay bind ni mentor. waaw nah, sama taxi si lan taxi trian xanaa ak ak njubla. mais sa waa laa biddanti de tey nu mu demee nii. ba eh mentor yaa ngi may dépassé nag de. baax na. ma bëgguma benn problème ak yow. démb damaa teel a kaawate teel a nelaw de. yaay nekk tey gis nga bokk ak nit ah da ini buat bokk tëdd rek après ku agak day gàddu sa buum noonu nga yàq ni demul noonu de jëma cuub dama comprendre rek waaw mais xam na ne nag kaay tey moom ah tey tey moom tasoo yaakaar da nga daan tas yaakaar ba tey orange bi ji suuf ci kaw man xam nga ne yow man kapo la fa ma koy teg temps lay doon des la saf ngay def di bàyyi faal la yow waaw ba mu sotti waaw yow lu tax doxiwoo fan da ngaa kéefal toog ci kër gi waaw da ngaa civilisé xanaa xamul li nga def ni dama ko bëgg سيفليز ساك تقلا سيتان كني bien, جنبي يا عم قلبس نوب انا قلبس كيا منتور bett ngeen ma trop yow ma jam bett ngeen ma trop ma jamul yaakaaruma woon ni suma un problème suñu kër ñëw ba fii ngir dëkkandoo ak yéen yaakaar ni suma problème daf may wan gannaaw je pense que sama problème dafa war a jeex lépp dina leer tey day wedd de weddi dina wedd de loolu xam naa si dara Assalamualaikum. ba mu ñëw. tante na nga def. ça va Aliou na nga def. ça va Aliou toogal. da nga ma woon. waaw maa la woon yow li nga waxoon ci ndax tungu ba fii Aliou soog a ñëw xam nga yaa ma waxoon ma toppatoo ko. bu dara manqué man daal su ma nekkee si wàññi sax di togg. bay bay dëbb noonu ba sëgg mu ñëw di tàpp sama taati maa ko aali bàyyi ngay def mag du foofu balaa sama yaay dañ fekk ñu fi mu yaakaar ni dara la léegi mu ni ma kon soo paree nga ñëw fekk ma sama néeg ñu waxtaan ba waxoon na ma sax man def ma comme sa xarit lépp la naqari ñëwal nga wax ma ko yaa ngi dégg léegi man bu ma demee di ko yóbbul añam ci biir néegam ma dugg daal man daal ju ba léegi daal dama seetlu ni ba ma ma ko joxee loxo ba léegi lu mu wax damay wax waaw te moom yaram bi da see takk téere bi mu fees dell waxoon naa la ko sànq ne dafa am benn téere bu nekk fi bu bizarre sa lu ma wax ma ne waaw si la ma sàkkoo nag. eh vous avez la parole waxal yow da wax. lan wax di mais lan lay wax ci waxu fenkat bu mag bi dëgg yow yaay fenkat bi. yow yow yaa mais man lan lay wax yow yow yow wax nga dëgg yow. mais lan lay wax ci kat bi ya ko dak fen kon mom ngay gem lim wax lim wax moy deug ndax dama koy ko gynécologue bala ko yobon mune dañu dindi ndawam ta yow mi nag ya ne ci kër gi yow ya bon amulen lu ngeen di def lu du fek sama valise ngeen jël sama xaliss ya waroon nga jomb loolu même bu du dar sama morom gor yalla nga xaliss bi dama ko ñak ta ay million la defon ci suma valise bi may ñew di génn suma kër dama débloquer xaliss bu bari banque uniquement pour nekk ci suma bopp ngeen jël sama xaalis yow moom ku ma bett nga. Taale dimbali ma nga mel ni Cheikh Taalif noonu bugguma ay wax nag bugguma coow yow Taala yow lan la ko tim nañu naan bett ngeen ma sàcc c'est-à-dire yow eh xam nga la laa bëgg nga ne tekk ne sow ñu woyal dañu laa fat da ngay régler civilisé gis nga soo réglé wul mottu ngay def mana naan jiyaate ay Dengan da nga ma faale yow say millions yow. kii yaa toogal gis nga yow sincèrement booy man ba ma la xamee ba léegi man naka jekk ma xam ne yow yambaar nga. parce que munu mo comprendre yow nga ñew andi sa valise bi nga xamanteni leral man yéré yu baax sa neeku ci nga nan ay million la ci roof ay briques la ci denc. yow bu la xol xamni moy lolu xamul mo bëgg nga xam ko. sa kër xama say saay na la xuma yaa sa bop fi la ci munu ñu la héberger nga ñew fi naan nak ñu jéem sacc dañ ñuy accuser ak yo xamanteni karama moy mooy yow xaram ma ñëw Memang suka amul même su fekkente ni bi sama daf ma nar a def yenn nii nga war maa ruus wegtaal bàyyi ma ngir yàlla s'il vous plaît ngir yàlla ak yonent bi xaalis bi ma defoon ci valise bi dama ko ñàkk ah. ngeen dimbali ma rek te yàlla rek a tax waaw yow eh. yëkkatiwaat bi jox ma yow taala dañ laa wax ne kër gi ay arnaqueur fi wala ay wala ay ba yow nga bëgg jiñ warax la la yow ay ko defante yow dama koy defante gi ba mu saf saf yaa ko dàq fen fenkat bi yoo imbécile yaa bon waaye nag yaa yey jugal nga door ma jël sama doom def ko li nga koy def ba pare taxaw fii naan ma defuma ko lii defuma ko laa yaa ko violé yow mii la yow waxal dëgg ban dëgg mais dëgg dëgg la wax kii du wax mais mais kii dafay fen tante kii dafay fen yaa ko dàq ñu ko man kii lan laay lan laay def ak moom kii fii la nekk keroog lu nekk mu proposé ma ko. daman du dëgg du benn dëgg yow yaa bon yow yaa yaay imbécile yow su ma xamoon ne li nga may fayee yow. non billaahi xoolal yàlla eh, dinañu eh, àtte. Eh, eh bu fi waat baal yàlla yàlla du sa morom de yàlla du sa morom mooy waate. ci ay fen sa doom ji demal nga wax ko fan lañ ko ëmbalee ak fan lañ ko tëddee. fañ ko tëddee na dem mu wax la ko. yow mii la. kii kon kii ba mu xamee góor yàgg na. koo ko xamal góor baax na. yaa ko xamal góor yow mi newoon prison ay at ñu génn la ci prison bi indi la gisoo jigéen nga dëkk ci kër gis jigéen jël sama doom violé ko yaa gën a caga ñëpp yow xanaa ay caga bu mag bi. man dama la indi porte plainte. te yow tôt ou tard dinaa prouver que ni yow waxoo dëgg gis nga li mala wax nii lool yow yaa bon. wax di pour mu gatt ak yow yow samay birig da ngeen ko yow may nit jam yow dama ci def parce que dama ko ñaan yow ma na léegi xamul mo bëgg nga jël say bagage ndax mënuñu la héberger ci kër gi japp la te yalla rek tax nga ñëw di jéem ak ay sàcc ndax ay birig ci nek ak ay million ci nek lima bëgg nga juk jël sa valise nga abal ñu kër gi sama xaalis wax di ngeen ma andel yow mané amo fi xaalis di ngeen ma andel mu leer jugal nga genn kër gi yow quel que soit les situations way ay dama ni la sama xaalis nga mako ko yow yaay ki may jox suma yow ma ma jàmm xool ko tubayam yu séré mu seere ngànk waaye kii maa koo jébbi sama Nicolas boobu xam nga ni deux cent sax newu ca yaa ñàkk jom moo tax ñi jor ñoo yërëm quoi mentor dama la bëgg yow dama la bëgg de waaye wuy ma nag kaay muusuñu ko yeewuñu way na kay nak mentor xaalis bi bu ci la lo gum dara ba carte gi set ndax lii setagul ndax xam na ni ñoo war si noo dóor xaalis bi. mais ko wax duñ ko gëm ko wax duñ ko gëm ndax booy bi yambar laa. Hmm. mentor maa ngi wax de du maa yow door dóor gi xaalis bi nag nga tegu ci yoon ndax xam naa la dangaa xiif xaalis yow. mais sama rakk nga yow ñoo far sa xaalis mooy sama xaalis. sama xaalis mooy sa xaalis. gis nga kim ne fi mu toll nii sàcc gi nga ko sàcc nii bu ñu ci doon daan ku ne dañ lay jox sa wàll. kon dama bëgg kon maa ne càcc gi ñu càcc. xaalis bi bu ci téeméer génn ba keroog ma lay wax lan lañ ciy def leer na. tey nag nante nga. ah tey moo ko gën ko napp nag dama ko napp dama a sow xóoyal nga daal. li nga mukk ci moo fi def. mooloo quoi lii xam naa dëgg ñu ne ma déedéet xaaral rek man dinañ

di ma neem neemal di ma raay di ma def yu ne bu ñëwee toog fii yor kanamu innocent boobu mun kii ah. waaye yow it naka réglé yow kenn gënu laa yor kanamu innocent yow fi kii bu dee wéyu yow ngay bandi. man man defuma dara. yow laajuma la dara yow sama xol bi da nga koo jeexal tàkk sama xol bi jeex na tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk ah. fitna gi ngeen ma teg nii ah lekkatuma naanatuma xamatuma lu may def nurootuma nit ngeen ma teg fitna chaque jour. ah way itam way way way way yàlla ngeen deewaay yéen la jël ngeen ma torop xaw ma lii mu doon man xaw ma foo ma toppee yow su ma xamoon su ma la juree nii ngay mel dama ne damay toog sa kaw nga dee ndax teg nga ma fitna àdduna teg ma fitna àllaaxira te deewagu ma yow yaa bon nga jugal waa jugal jugal jugal jugal kenn du ko jéem dama ne nga jug ndax man benn waa jugal jugal bu ma énervé jugal yow jugal waay yow imbécile mu nga xam naan day jooy ki imbécile la rek man sama àdduna gépp yàqu na mënatumaa dox ci mbedd di mënatumaa wax ci mbedd yi man sama doom bu ñu yëgee ne yàqu na dootuma laabaanati xale ba mu dugg ci noppam noppam fu mu jëm